président Macky Sall man ak délégation bu takku bi ma àndal ñu ràññee ci ministre d'État Ndeye Mariam Badiane ministre matarba Ba ministre Dame Diop ministre Abdou Latif Coulibaly ministre Seydou Guèye ministre conseiller Youssou Ndour ministre Conseil, Aron Ndofène Diouf conseiller spécial Isma Djoum, conseiller spécial Fatou Cissé gouverneur Djurbel, Gorgui Mbaye préfet Mbake Mohamed Lamine Mane. préfet Bambey Mortaletin, préfet Djurbel Ibrahim Fall sous-préfet Ndoulo Mansour Diallo honorable député président Parlement CDAO Moustapha Cissé honorable député Awanyang, honorable député Amin Ndiaye, honorable député Cheikh Sek, honorable député Aïssatou Mbodj, honorable député Abdullah Sek, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales Aliouja, Serigne Alioudia, Serigne Sidi Conseil économique, social et environnemental Serigne Gad Sal, Alioune Khadim Khol, Baye Mor Ndiaye Ibrahim Faye directeur général Modou Diagne Fada et directeur général Galoba, Serigne président yónni fi ak délégation boobu ñu Nous ñoo ngi nuyu di Touba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 te yàlla sunu boroom wax na ci suratul ibrahima aye juróom-ñett la in shakartum la azidannakum sant leen ma su ngeen ma sante ma dolli leen jàmm ak mucc ak teraanga ak xéwal loolu lépp nag gis nañ ko mu nekk dolleeku ren sëriñ bi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 yalla mi ngi may dimbalé mbindeef fi dinañu ma top man Bamba ci réew mi ak bitim réew ndax may borom njariñ te duma lor kenn sëriñ bi bala ñoo sori dañu lay lat ci gu masalikul jinan gi nga defoon ñetti ay bes ci ginaaw ñu gaway bi liggey bi am ci tax mu ni tollu ñu liggey ku ci juroom ñaari at waye li ci yeme moy mbolo mi la joge si ci rew mi ba ñu bari dañoo fanan pour mëna bokk ak yow julli ñu won ci kër diine yépp ci Sénégal ak ñi teewal seen dëkk fii ci senegaal ak mbooleem ñi yëngatu ci wàllu koom ak ci wàllu politik rawatina njiitu réew mi président Macky Sall ak waajuram bi mu wuutu ci bopp réew mi muy président Ablaye wat sëriñ bi ci sa coobarey bopp nga fexe ba ñu toog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 amna gox yu amone problème ndox dama nekkone fi ci fan yi dund ko ak ñom serigne bi biko président yégee mu jotna ñu saytu réseau ndox bi bu ñu réseau ndox bi nak tiyo yi ci la bok bu ñu réseau ndox bi également euh, château d'eau yi ci la bok jotna yit it ñu xalaat wuti ndox ci yenen bërëb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 ñoo ngi daaneel suñu kàddu gannaaw bi ñu la delluwaat ziar di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëfe sëñ Tuba xamdan